wajalilaayi maskani tubaabaat misras mi abijaayi xayri ma nabaat mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi fii ci dëkk bu sell bi di Touba. waaw gàncax gi ngeen gis dafa bokk ci barab yi nga xam ne ni naatal Touba jur nu ko toolu Touba ca kanam a ngi nii mbokk yi fii may wax ak yéen li ngeen di gis pépinière la waaye bokkul ak pépinière bu mag bi nga xam ne nii Touba ca kanam fàggu na ko fële ca Kër Gol mbokk yi tey nag ñëw nañ toolu Touba ca kanam fekk fi président commission environnement mi nga xam ne naatal Touba ci ay garab. la ko Touba ca kanam dénk mbokk yi ana lan moo indi natal Touba lan lañ jotu liggéeyagum ci dëkk bu sell bi di Touba waaye mbokk yi xam ngeen ne reboisement bu mag ñu ngi koy waajal ci dëkk bu sell bi di Touba ci teewaayu son excellence monsieur le président Bassirou Diomaye Diakhar fay lan la ci Touba ca kanam indi ci wàllu reboisement boobu mbokk yi loolu lépp nag incha allah ñu ànd ak production Touba ca kanam Serigne Mbacké Seye ci caméra bi ñu jokkoo ak Serigne Fallou Ndiaye président commission environnement bu Touba ca kanam bismillah mbokk yi ci toolu Touba maskani Touba misrasmi abi jaayi xayri waajal ilaahi maskani Touba nga nekk wala maa ngi Touba maa ngi fii ci toolu Touba ci kanam bi nekk fii ci Daaru mm, kon naatal tubaa ay réalité la ñu bàyyi la nga présenté wu am mbokk yi nga xam ne ñoo lay bàyyi xel parce que dama leen di wax ne yegg si nañ ci toolu tubaa ca kanam ma ne leen lii pépinière la waaye bokkul ak pépinière bi nga xam ne moom la tubaa ca kanam créé mu am ay at fële ca Kër Gol gannaaw boo présenté woo nga présenté ñu lieu ak ci barab bi nga xam ne ci la ñu nekk Serigne Fallou Ndiaye président commission environnement bu Touba ca kanam. asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf Serigne Cheikh maa ngi leen nuyu di nuyu mbokk taalibe yëpp euh, fii ñu nekk nii lenn la ci bërëb yi nga xam ne Touba ca kanam fàgg na ko ngir dëkk bu sell bi di Touba muy ay tool yoo xam ne fas yee nañ fi liggéeyal Serigne Touba. Euh, ñu yëkkati slogan boobu nga xam ne euh, waxoon nañ ko daaw muy bay dunde fii lañ ko bëgg a expérimenter euh, tey nag li ñu tax a ñëw fii mooy garab yi nga xam ne gis nañ ko fii moo am lu am solo loo xam ne Touba Ca at mu jot daf koy waajal di ko def buñu agsee ci waxtu wi ginnaaw bi ñu lancé projet natal Touba ci ñeenti at ci ginnaaw Touba Ca Kanam ni mu lancé projet leeral dëkk bi gis nañ dëkk bi leeraay projet setal dëkk bi gis nañ nañ ciy taxawee waaye nag noonu lañ lancé projet naatal Touba ci garab xam nga ne Touba turandoom garab la gu nekk ci àjjana kon dëkk boo xam ne turandoom garab la dëkk boobu moom ku garab sax fa nga ko war wutee loolu nag incha allah loolu lañ bëgg a liggéeyal Serigne jëmmal ko fii ci dëkk bii nii di Touba xam nga xam nga at jot nawet programme boobu lañuy ñuy naatal Touba. Euh, mu am liggéey am solo xam na liggéey dañ ko ci diir ñeenti at yu weesu euh, diggante Mbàkke ak Touba ñaar rond point trois kilomètres la euh, Touba ci kanam defoon fa ay cocotier lu toll ci junniy koko tey boo fa demee di nga gis axe boobu ni mel ci ak ay garab sëñ Muntaxa keroog moo ñëw moo fa jëmbat koko bi njëkk kii moo ko fa jëmbat ñaanti tey ku fa jaar ci diiru ñaar yi duñ ko gis ginnaaw koko yi tey boo ñëwee ci autoroute à bi wàcc ba ni ngi accès ci rond point bu mag boobu bu Touba Fall bi gis nga xay yi nga xam ne Touba ci kanam def na ko waaye yemu ca waaye def siiw bi ba tey ku fa jaar da nga gis xay na muy jàppee euh, loolu nag di liggéey boo xam ne Touba ci kanam daf koy def ci dëkk bu sell bi di Touba euh, ren jii nag euh, ñu lancé waat ko projet natal Touba yàlla def xam nga Touba ci kanam at mu jot commission bu ci nag dañ la tegal feuille de route lii ak lii nga war a liggéey Euh, ñu xamal ñu ne ren lu jëm ci wàllu reboisement bi euh, war nañoo reboiser naka jekk waaye war nañ cee yokk ba ren arbre fruitier muy garabu meññeenteef ñu boole ko ci biir programme bi waaye nag reboisement bi gën a yaatu ndax dañ daan reboiser ay rek waaye ren dañu bëgg reboiser axe yi reboiser quartier yi reboiser penc yi waaye nag garab yu bëree bëri la war a doon ndax tànn nañ 28 quartiers yoo xam ne garab gu nekk minimum 1000 garab muy 28000 garab yoo xam ne dana am waaw ak juróom-ñett muy vingt huit mille garab incha allah moom la ñu bëgg a def ci quartier waaw bokkut nag yi ñu war a def ci axe yi euh, ginnaaw nag biñ ko biñ ci waxtaanee bu jubóo ñu tànnoon ñaari axe muy axe rond-point gaz Daaru Musti bu hôpital Cheikh Khadim loolu sept kilomètres la ñu war a def ci benn sept kilomètres bi ay garab def ci sept kilomètres bi ay garab muy quatorze kilomètres chaque dix mètres la ñu def ay garab kon diggante boobu côté bi sept moo ci nekk. côté bee 700 garab muy 1400 garab moom la ñu war a def foofu garab bu ci nekk dafay àndaale ak gabion muy grille protection bi euh, bu ñu fa jógee ñu tànnaat axe ndindi rond point garage daara ba kër Sëñ Abdou Karim foofu 3 kilomètres 500 la côté bii ñu war cee def cinquante garab beneen côté bi muy 350 garab soo ko boolee muy 700 garab moom la war a def ci côté yooyu ñaar yooyu lañ tànnoon yéen yi des nag ñu ne léegi dañuy jël ay garab meññeenteef. fexe ba Touba kër gu ci nekk gàtt gàtt nga def benn garabu meññeen def ci sa biir kër waaye ci sa buntu kër nga def ci garab goo xam ne garabu ker la. loolu nag bi ñu ci waxtaanee ba comité directeur bu Touba ci kanam validé ko ci lañ defaroon benn affiche boo xam ne dañoo waxoon ne ñaari junniy màngo lañ bëgg ay mur jaayante ko ñu def ko ci campagne de reboisement bi bi biñ ci defaree affiche nag lancé ko ci page Facebook bu Touba ci kanam ci la ko premier ministre gis Ousmane Sonko capturé image bi envoyé ko ministre de l'environnement. bi mu ko ko envoyé na ko contactel ñi nga waxtaan ak ñoom ndax projet bi am na solo ministre bi contacté ñu woo ñu téléphone xamal nañu premier ministre moo ko jox ay directives ngir mu jokkoo ak ñun kon nañ ñëw ñu waxtaan ci lañ defee délégation dem fa ñu ànd ak sëñ Mamour président Touba ci kanam Abdou Fatah Gueye vice président Mame Thierno Ndiaye président réalisation ak man ñu ànd keroog bi ñu demee toog ñu waxtaan leeral ko li nga xam ne jot nañ ko liggéey ak mébét yi nga xam ne bëgg nañ ko mu rafetlu ko lool ànd ak ak équipe am keroog euh, inspecteur euh, national eaux et forêts ma nga fa muy colonel bi biñ ci waxtaanee mu daal ne nag man ci sama jëmmi bopp en tant que ministre de l'environnement sama yéene mooy journée de l'arbre ma defee ko Touba mais nag c'est pas encore officiel dinaa ci waxtaan ak samay kilifa bu ko accepté ma def ko fa ndax lii ngeen ma présenté wax dëgg yàlla Touba waxuma la ñëw fa jëmbat fa garab rek waaye jëmbat fa garab sëñ bi jàpp ci rek day tax ñeneen roy ko te yéen lii ngeen def bu ñu ko fa defee ñeneen dañ ko gis ba ñëpp war koo mën a roy ci loolu nag ci lañ commencé di ci di ci waxtaan di ci waxtaan di fa dem di def ay réunion ñu laaj ñu projet bi nga xam ne ñun fas yéene koo def ba biñ ko xamee ñoom ñu wax ñoom luñ ci bëgg yokk su fee ñu ànd ko après nag ci la waaw 28000 garab bi ñoom àgg nañ ci boo xam ne 80000 garab lañ bëgg a def Touba ren 80000 garab yoo xam ne état du Sénégal bëgg na bëgg na koo def koo xam ne ñaari junniy màngo nga doon wut ne la daal indi 80000 garab loolu taw feexu seriñ bi la tawfeex tàmbali nañ liggéey bi euh, actuellement ginnaaw bi ñu waxtaanee ñu wax leen ñun li ñu am ndax Touba ci kanam tëbu tëb rek ne dafay naatal Touba ci ay wax waaye nag dañ koy préparer di ko jëf dañoo taxawal benn pépinière boo xam ne dañ faa def ay garab yoo xam ne garab yoo ñoo ko semé ca garan ba ba ni muy màggee mooy ay autiche euh, keroog bi ñu waxtaanee ak ministre bi mu yebal fi ay services mi ngi ñëw xool biñ ñëwee ñëw ci pépinière ba ñu gis liñ fa liggéey ñu xam ne même ñoom bu ñu indiwutoon garab garab yi képp bu ñu ko defee ci Touba rek alhamdulilah mu doyoon sëkk biñ ko rafetloo nag euh, inspecteur régional bu Diourbel bu eaux et forêts bi ñu fi yebaloon bi mu ñëwee bi mu demee dafa bég ci liggéey Touba ci kanam ba bi mu demee matériel bi nga xam ne moom matériel région am la pour liggéey ko daf ñoo ñu woo yàpp ko ci oto andi ñu ko parce que li mu gis ñun moom li ñu waroon def ñun moom la ñu def mu ne dama leen jox sama matériel ndax ñun liñ bëggoon yéen réaliser lu ci région de Diourbel te def nañ tournée ci mboolem pépinière yi nekk ci région de Diourbel mais pépinière Touba ci kanam yemu ci ak benn kon faw ñu jàppale leen ci loolu nag ci la ministre bi jox directive ay service am ñi nga xam ne ñu nekk ci environnement kenn ku ci nekk looy participer ci Touba ci kanam nga indi ko jox ko Touba Ca Kanam ñu ànd liggéey. mais dafa mel ne mhm. aussi boobu ak léegi mën naa ne wax ne reboisement bi tàmbali na. Mhm. journée bi nga xam ne. Mhm. moom la euh, ki nga xam ne mooy ministre bi doon wax. ci ndaje bi nga xam ne njëkk na ko daje ak euh, Touba Ca Kanam. gannaaw bu mu gisee seen liggéey à travers le premier ministre. tey dafa mel ne mbooleem service étatique yi. ba ci muraille verte. Mhm. muraille verte mooy naan mel na ni ñoom it ñu ngi approché Touba ca kanam. Mhm. di indi mhm. ay ay yoo xam ne. dafa jëm ci wàllu reboisement boobu muy journée bi nga xam ne ci lañ jëm. waaw journée moom euh, ñu ngi sant bu baax ministre de l'environnement ndax keroog bu njëkkee toog noonu la ñu ko waxee woon dana si jàpp bépp service boo xam ne ci moom nga aju dana la wax nga jàpp ci loolu nag tàmbali na ndax Touba ca kanam moom lu jëm ci wàllu garab diggante axe hôpital Cheikh Khady ba Ndindi am na garab yi rond-point garage Daara ba Kër Sëñ Abdou am na garab bi gabion yi tamit am nañ ci junniy gabion ak téeméer yoo xam ne dèjà Touba ci kanam jënd na ko bañ defar ko ba pare nañ tamit ñaari moto tricycle yoo xam ne dañ ci teg citerne pour lu jëm ci arrosage bi ak di transporter garab yi di ko yóbbu ndax reboisement bi journée la 4 bi mooy journée de lancement bi mais bu jàllee fi ba octobre Touba ci kanam dafay wër di reboisé suivi bi ndax reboisé moom yomb na waaye suivi moo jafe ndax boo gisee Touba ci kanam Euh, lii nii état gis ko ba neen na ñëpp roy ci ñoom suivi moo tax ndax ñëppay jëmbat waaye jëmbati garab ba ren di nga ñëw la nga jëmbatoon nga fekk à quatre-vingt-dix points réussir loolu yitte la te Touba ci kanam yu bari amoon na defoon nañ defoon nañ ko suivi su suivi la amut loolu nag li ñu si ministre bi waxoon ci lu jëm ci wàllu matériel bu dee garab garab yi nga xam ne ñu ngi jàkkaarloo nii muy ay mantalis toll ci ay junti ak téeméeri plateforme yi ministre de l'environnement moo ko yónnee jaarale ko ci eaux et forêt nationale tey jii liñ ko fi moom lañ moom moom la ñu wàcc nii. Euh, lu jëm ci wàllu gabion ñoom actuellement defar nañ 2500 gabion tey jii la commencé di ñëw mu mu mu mu ngi accès mooy protection yi nga xam ne mooy proté moo war a protéger garab yi bu dee lu jëm ci wàllu matériel reboisement muy brouette muy pelle muy gant muy dàll bot yi li ñuy gasee yooyu yëpp ñoom indi nañu ko tey jox indi ko pour journée nationale de reboisement te garab yi yamu ci ginnaaw bi ñu wàccee garab yi ña ngay delluwaat pour indi garabu meññeef muy arbre fruitier yi te fii ba bis boobu ñoom danañ indi garab kon garab yi moom macha allah waaye nag euh, dañuy sant bu baax taal bi Sëriñ Tuubaa ndax bi ñu ko déggee rek garab yi ñu gis fii nii muy fleur yeeg ah palmier yeeg koko yeeg yu ci bari sax man xaw ma tudd association association des jardiniers du Sénégal ñi nga xam ne ñoo nekk ay côté Maristes Padoue côté yooyu népp ñoom it ñoom ñoo woote ne nañ leen yebalal kamion ñoom ñu barkeelu ci ñoom ñoo lii nii camion la bu ñu fa wàcce incha allah suba it camion bi dana demaat foofu jëliwaat euh, barki dem boo duggee fii garab mango yi bare fi garabu limon garabu papaye yëpp arbre meññeentef yooyu yëpp yooyu diggante mbooro nootu murid yi nekk foofu surtout soxna yi ñoo ko jaayante Touba ci kanam dem ñëpp ko ci camion andi ko nga xam ne garab yi moom ñun biñ koy xalaat ñaari junniy garab lañ ne woon lañ wax lañ soxla woon waaye fii ñu toll nii maam garab yi mu ngi ñëw wax dëgg yàlla mu ngi ñëw bu baax a baax a baax mur yaa ngi ñuy waajal nag rëb te suivi bi incha allah euh, danañ ci taxaw euh, xam nga le cadre la waaye ñun duñu xaar le cadre mm-hmm. dañuy anticiper actuellement commencé ni reboisement bi ndax dañu bëgg reboiser bu balaa président di ñëw ñu reboiser lu bari bu président ñëwee ba def arbre symbolique bi ndax bis boobu day ñëw euh, day jëmbat symbolique dañuy bàyyi axe bi nga xam ne fi la fi la war def loolu ñu jëmbat li ñu fa war a jëmbat lépp bàyyi fa au moins dix garab ñoom bu ñëwee ñu jëmbat ko symboliquement ngir sénégal yëpp mën a tàmbali di jëmbat euh, tàmbali nañ dëmb diggante hôpital Cheikhoul Khadim jëm si gaz Darou si loolu nag bi ñu koy def ñu ngi ko ànd ak waa eaux di ay jàmbaar lool lool lool lool lool lool lool ci liggéey bi ànd koog tamit ak waa direction cadre de vie xëy ndaw yi ndax bi Touba ci kanam lancé loolu euh, directeur boo xëyu ndaw yi mooy directeur cadre de vie nga xam ne ci ñoom la boot ñu ngi koy sant au passage moom moo ñu affecté cinquante personnes yoo xam ne dañ ne dana ñëw ci Touba ci kanam durant trois mois yi ñu ànd ak yéen ci lu jëm ci wàllu reboisement ñu ci jàppale ñoo ñëpp nag ñoo ànd liggéey bi euh, di ko def ñoo ànd liggéey bi di ko kon nag ñoom ñu ngi leen di sant bu baax di wax na daal incha allah euh, Touba ca kanam moom lépp loo xam ne jëmbat na ko dana ci topp ci suivi bi loolu moom incha allah danañ ko assuré hôpital Cheikhul Khadim bi 14 kilomètres danañ topp suivi bi yoonu ndindi bi 7 kilomètres la danañ def suivi bi penc yi actuellement commencé nañ di def formation yi. deux mois ci ginnaaw boobu ñu ngi def ay formation ci jeunes yi nga xam ne ñoo dëkk ci quartier yi ak paa yeeg yi nga xam ne bu xale yi xëyee ñoom ñooy de si kër di wattu garab yi ñoom ñoo leen ci nan la ñuy garab ak nañ la ñuy garab ak leer leen njëriñu garab ba nga xam ne bu reboisement yi bis bu ñu def rek ndax nee la danañ danañ ciblé 28 quartiers yóbbu 28000 garab garab yooyu nag bu ko fa yóbboo lu ci ñu wax ñu ko ñu ñëw bu lu ñuy defar réparé ña bu dee lu ñuy din def beneen ñu ñu def ko fa noonu daal lañ fas def léegi eh, am na ci loo xam ne ci wàllu suivi bi la du mën a ñàkk mhm. eh, nan ngeen xalaat ci ay kilomètres pour mhm. entretenir ko di ko arrosé c'est vrai que ñu ngi ci nawet mhm. mais après est-ce que duñu am xalaatu def ay gout à goutte def ay forage mini forage xaw ma eh, lan ngeen xalaat ci ci boobu boobu entretien parce que du lu yomb quand xam nga gis nga garab yi ñu xaw a jàll ni muy yi liggéey bu méttee métti métti lañ daj poursuivi bi ñu ngi sant bu baax sëñ Abdou Karim sëñ Fallou ndax Touba ci kanam bu amee réussite ci garab sëñ Abdou Karim la ndax keroog bu ñuy defee garab gi la jël ay taalibeem ne leen dem leen ngeen liggéey sëñ Touba ci garab yi seen ngërëm ci sëñ Touba foofu laa lañ ko dugalal booba ak léegi Baye Fall ñoo fa nekk kokoy nu mu mel Baye Fall sëñ Abdou Karim la xëy nuñ mel Baye Fall sëñ Abdou Karim la kon ñu ngi koy sant bu baax waaye nag suivi bu boo xëyee yor sa oto seetaan eh. topp di roose 7 kilomètres nga def ko aller retour dafa metti mhm. dafa metti moo tax nag ren mhm. li ñuy sàkku mooy axe yu mag yi lu toll 14 kilomètres au moins mhm. ñu def fa ay mini forage keroog wax naa ko ci réunion bi ñu doon bi ñu def ministère de l'environnement nañ fexe ba axe ñuy def yu mag yi au moins suivi bi ñu def fa ay mini forage yoo mën a def ci système solaire installé ci goutte à goutte su ko defee li ci des mooy koo xam ne day ñëw di ko saytu grillage bu yàqu mu defaraat ko garab gu ci dëng ñu jubbanti bu ko defee aroon ndax garab gi moom boo nekkee ci suuf sa ndox mi doy rek incha allah feeg ñaari rek garab yëpp danañ jàpp lool nag loolu nag Touba ci kanam dana jox jëm waaye ku leen ci jàppale ñu jël ndax jën nañ tricycle yoo xam ne ñaar la pour arroser actuellement nii ña ngay arroser garab yi waaye loolu lépp am na lu ko gën a gaaw gën ko pratique ndax nit énergie bi nit ki di dépenser essence bi yooyu yëpp boo ko defoon sa mille francs ba am na système solaire la da ngay automatiser lépp garab yi fu ñu jaar ndox mi jaar fi di wax nag murid yi nañ góor góorlu ci weer wu nekk kenn ku nekk joxe ñaar téeméer ndax ñaar téeméer yooyu dafa barkeel Touba ci kanam bi mu tàmbalee léegi mboolem luñ fi gis ñu def ko rek ci ñaar téeméer yooyu la mm-hmm. kon ñoo ngi soo ñu murid ñu gën a góorgóorlu ci ñaar téeméer da leen joxe ñaar téeméer ku mën ku amul sax day ko def say waajur yu fi nekk sax da leen ko joxel sëñ Muntaxa mi nga xam ne tey moo fi sëñ mm-hmm. joxe ba joxe waaleel 99 personnes ak boppam muy téeméer comme moom mooy joxe nag ñun ñii nag ta dongee xeew bi yii waaw ñu ngi ñëpp ñu ñëw a jàpp ci Touba kanam ndax liggéey bi bari na li koy xaar bari na te ñu ko yaakaar bari na tey gis ngeen dëkk bi ni mel ndox te te te ñu bari Touba Ca Kanam la ñuy la ñuy sotee tali ni mu yàqoo Touba ci Kanam ci mu ngi ci defar loolu nag ñaar téeméeri képp moo ñu ko mën a may kon nañ góorgóorlu ci naatal Touba te garab bokk na ci li nga xam ne day xeex inondation ndax garab gu ci nekk dañ lay wax ne la li muy naan ci ndox bu bari na kon bu garab yi baree sax yu ci bari mën naa wàññeeku. li muy bu baax oxygène bi ñu nooyi garab moo koy produire. dañu ko jox moom moo ko bien tey fii ñu nekk nii yaa ngi nooy oy bu baax ndax gaz carbonique bi ñun moom lañu ñu dégagé garab gi moom moom lay dundee di ñu jox oxygène bi nga xam ne ñun moom la ñu dundee ñun kon garab ak nit mënuñoo tàqali ko seeni Cheikh. jërëjëf sëñ Fallou yaakaar naa ne am na solo kon mbokk yi weddi gis bokk ca gis ngeen tubaa ca kanam ak naatal tubaa ni ñu def entrée Touba yaakaar naa ne ay at garab gu nekk jëmbat nañ ko fa waaye jebbiwul ni mu mel nii gis ngeen diggante Ngaabu ak Touba ci deux voies yi boo wàccee péage bi lañu fa def ci ay garab di ko toppatoo ba tey te lu ñu fa mës a jëmbat du jebbi mbokk yi tey naatal Touba di réalité Touba di garab kon képp koo xam ne dañ lay tudd di tudd Serigne Touba rawatina ñi dëkkee Touba ñi dëkkee ci dëkk bu sell bi Touba kon warteef la ci kenn ku ci nekk donte benn garab la nga jëmbat ko toppatoo ko. sa xel dem ci la sëriñ Abdoulaat waxoon kenn ku nekk sa pujjub néeg mooy sab seere waaye garab gii nga xam ne moom la sëriñ bi tuddee garab ga ci àddina kenn ku àjjana kenn ku nekk sa garab war naa mën a nekk sa seere waaye mbokk yi entretien bii kat ay ca murit mini forage jarul dara day delloo xel yi ca na mag ñi daan bënnee teen jaamu yàlla gu rëy la su ko defee ñu ci arrosé garab yii Touba naat te lu war a mën a nekk la mbokk yi sëñ Fallou lan ngay wax ci sa kàddu gu mujj ci jataay bi waaye jàpp naa ne murid yi am nañ lu mën a bënn ferrage murid yi am nañ lu mën a mën a def goutte à te jàpp naa ne ay kilomètres nga bënn fa forage muy arrosé ay junniy garab benn sànni la nga jam ci ñaari picc mbokk yi kon naatal Touba yaakaar naa ne Touba war naa naat te kenn du ko naatal ku dul taalibi Serigne Bamba yi. Euh, jërëjëf Serigne Cheikh euh, maa ngi sant bu baax nag waa Grande Muraille Verte. ñoom ñoom it indi nañ fi ay gabion lu toll ak lu toll ak deux cent cinquante neeneen dina ñëw saa yi ñëw na mu des cent cinquante euh, waaye daal di wax moo ko yi euh, ñu góorgóorlu ci projet natal Touba bi lii nag day liggéey bi suñ Touba nangu ndax nangu gi moo waral benn affiche képp nga da ngaa bëgg ñaari junniy garab te ñu dem ba ne la président de la République moo ñëw jëmbat googu garab ci ndigalu xalif général de Mourides kon loolu lu suñ Touba nangu la lu suñ Touba nangu nag. ku ci dugal say mbir ñu nanguwaale ko kon ñu ngi woo mbokk taalibe yi yëpp ñu ñoo ànd ak ñun fu waay nekk na jëmbat garab te bu jëmbatee garab na koy toppatoo garab moom comme nit la day feebar di wér ngay faj di suuxat suba ngoon utal ko grillage di ko aar ba mu màgg te xam ne jaamu yàlla la waaye nag sa wér-gu-yaram sax si laju ndax garab ak nit mënuñoo tàggalikoo koo xam ne li ngay nooy moom moo la koy defaral loolu dalaa war a jege dalaa wër kon nañ fexe bu Tuuba Touba bëri garab te mën naa nekk. waaw loolu kay moom <laughs> ñoo ngi ciy ñoo ngi ciy woo murit yëpp ku mën a bind bënn mini forage ñëwal ñu gas ko ak si nga xam ne ci gala ci la ci la garab yi nekk ñu def ko ci suñ ko defee installé système goutte à goutte mm-hmm. su ko defee feeg ñaareel ñetti at garab yi bari bëgg nañ daal naatal Touba mm-hmm. feeg 10 ans mm-hmm. Touba naat mm, incha allah n'est pas murit wajalilaayi maskaniitu baabaat misras mi abijaayi xayri ma nabaat